Thank you. siwaahu maa lanaa fiihi min shughul ne yonent bi mooy lépp te lépp ci moom la jógee yëpp géej bu mu mën a doon nag ak a moom ñun doyal nañ lu ma yonent bi sallallahu alayhi wa ca soxla mbëggeel boobu moo tax na mu sosee woon gàmmu bi dina sosee gàmmuwaat diggante ñetteen woon gàmmu bi ci juróom ci at ak juróom-ñaar comme ni ko santoon gi nga xam ne mooy sang bu mag boobu gàmmukat bu mag ba Seydi Omar Faty Diallo te loolu buñ ko waxee fii ci Ndakaaru suñu xel dana daj kàngam yu mag yi nga xam ne ñoo doon taxawee loolu mbooleem ñi nga xam ne ñoo jiite woon mbooloo mbaay fii sëñ Mbaye Alhaji Omar Kane mën ci diin ñi nga xam ne doon ñu jatala ca Tëngéej duñu fàtte kenn ak ñi Alhaji Maptaan Alhaji Ahmed Koundoul président Baye euh, Baye président Mor Niang ku leen juub tey nag ñu ngi ci loxo ki nga xam ne mooy président Barham Seck ak yeneen président yi nga xam ne ñooy euh, ëmb mbooleem ansaaru diin yi nga xam ne ñoo nekk Dakar léegi nag gannaaw ñoom ñoo organisé te ñoo oote ñëw nañu jox kàddu président si euh, nga xam ne mooy Dakar Plateau ansaaru diin président Barham Seck moom la ñuy jox kàddu bala ñu dugg ci conférence bi fan ngeen ko doon mos bu tedd bi ci waxtu tedd bi nga xam ne suñu sëriñ Mawlana Cheikh Mouhamadou Aqib sànq bi mu fi ñëwee. mu wax la ñu ne guddi gi dafa tombé guddi nisfu Chaaban ñu yow di ci màggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon loolu nuur ci kaw nuur leer la ci kaw leer ñu ngi ndokkeel ñëpp di ziyaare di ñaan yàlla ñëpp di wax sëriñ bi ngeen gën a yokku ñaan ci Ansaar bi ndax tant bi ku fi dugg rek sa xol dina sedd waaye du kenn nit moo ko man taalib yëpp ñoo ci dugal seen loxo kon ñu ngi sàpp ngeen ñaanal leen yàlla ñu ngi leen di ñaanal yàlla yéen tamit di wax ne coono bi moo ñu jàpp ak baat bu dee waaye su tax coono loolu dinañ gën a mën a wax lu bëri ni di gërëm ñëpp kenn ku nekk ci ñun ku ci def gërëm ba million xam nañ la danañ bind liste bi jox ko kilifa yi buñ toogoon suba du jeex waaye jàpp leen ne yéen ñëpp jëflante wu leen ak français jëflante wu leen ak kenn yàlla ngeen di jëflante te kuy jëflante yàlla yàlla na mu fi te mosu fay jugee te du fi mosu jugee ba faw ñu ngi nuyuwaat bu baax Mawlana Cheikh Islam Cheikh Ahmed Tidiane ibnu Cheikh Ibrahima Sall Khalifa di ko ñaanal yàlla fan bu gudd bu ànd ak wér moom ak boole ak i mag yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh daw dem Angleterre ki nga xam ne mooy benn euh, général la benn kilifa politique la nekkoon foofa jël France jël Angleterre donc conseil bi def benn coalition ñëw bokkoon de Dakar parce que ay waa ñu gis nañ te coalition bi Angleterre la ak France benn parti bi Angleterre la ak Allemagne yi ko mën a Cheikh Issa waxoon ci waxtu bi nga xam ne ni ñu ci diine bi bokkoon de Dakar nga xam nga ne ci tawoon ndax dañoo xam ne ci lañ dawee Dakar lañ dawee daw ba raw réer dugg Amérique yi di daw di jël bële yi Sénégal am na ci xam ne dem nañ ba na ci ay fii la leen Dakar fekk ne teel ci kaw la ba ñu bàyyi làq leen benn xam ne daan na lekk ci assemblée France bi ndax boobu euh, indépendance ba nga mën a teewal suñu yëpp waaye amoon nañ ci benn Abdou Diouf amoon nañ ci benn Blaise Diagne amoon nañ ci benn Famara Baldé ci Mauritanie yooyu yëpp ñu ngi daan siégé di assemblée de France kooku ne ko kenn ci ñoom ne ko waaw waa Mauritanie yi ngay làkk baa du France ak baa du defee représenté sa kaw ndax ñaari gouvernement am ci France benn baa ngi am na ci Dakar bi ci des basé Angleterre te ñu ngi xeexee Dakar koo ci làkk ci des ne ba xam nga mbaa doo ci am problème bàyyi ne ko hee xanaa xamoon ne man maa waxoon ne ajiiru liman li ennemi xabiiru li daaxal haashimi ajiiru danga xamante ne maa waxoon ne man képp ku làqati ku daw làqati si ma danaa la fat te man ci attaqué yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maanaam ci affaire yooyu yàlla Muhammad di fa yëngu di fa yëngal kon ñu xam ne bu yàq imam raw la jamono boobu nag taalibu bàyyi raw nañ ndax taalibu bàyyi raw nañ ndax Mawlaay Cheikh al Islam waxoon ne kii nga xam ne mooy suñu maam xaaji ne ko jëlal nangam ak nangam di ko jàng ba nga xam ne ay lii yàlla wan na su ñëwee samay askan samay taalibe samay xarit ñoom dañu mujj mu làqal ba njëkk ak boobu jamono yooyu ñëpp même ñi nga xam ne français dañu doon forcé leen ñu dem ci guerre ba ñoom ñëpp ñu seen def na jéem na négocier pour ñu dem di demee ba nga xam ne xam na ne xam-xam na ne ñoom yóbbu dafa mujj ah garanti ne ñoom bàyyi naag seen bopp ñoom maam markataat seen bopp euh, ak ñeneen ñoo xam ne jógee xabaar bi dañ ci guerre boobu yi dafay wax ne leen da ngeen dem ci jàmm ñëw ci jàmm wax dëgg yàlla dem nañ ci jàmm ñëw ci jàmm guerre boobu ba ñu jeex ci àddina bi doo dégg benn mu xaddama Mawlaana Cheikh al Islam bu ñu ne rey nañ ko ci xabaar bi des années ndax gis na ko avant aar na taalibe yi avant loolu nga xam ne moom lañ ñuy séntu ci moom noonu mu leen aaree ci àddina loolu lañ yaakaaree mu aaree leen ko àllaaxira Mawlaana nag nga xam ne doom la ci maam borom xam-xam la seen bind yoo am ne Cheikh al Islam moo ko bind ko jox ndigal ci karnage yi maktubu Cheikh Tidiane gis nañ borom xam-xam yoo xam ne ku mel ni Aboubacar Atiq Aboubacar Atiq Nigéria la nekk boo xam ne buñ ne gëm na jiw rek fu jëla ne jiw moo ko yeew naa gëm gis nañ ko mu koy bind ay leetar di ko wax ne ko sama sang bi sëy bii euh, haadi sa jaam wala sa serviteur bi moo leen bind leetar bi yónnee la hadiya boobu mu doon nit ku am diplomatie nag jokkoo ak àddina am kilifa yu bëri ay xarit Mawlaay Cheikh al Islam yu bëri yoo xam ne euh, daan nañ euh, xam ne ci moom lañu jaaree xamante Ibrahima Niass radiyallahu taala anhu ba jëriñu fa jëriñu boo ko xam ne ci leen jëriñu wax nañ ne moom maam Xaaji moomu xam yeneen doomam yu baax yooyu ma ma ma jëtu Xaaji Abdoulaye Xaaji euh, Cheikh Ibrahim euh, ñu xam ne koo xam ci bàyyi jëtu Aboubacar nga ko xam ci mbay doole ak suñu yaay yu baax Nabou Niass ñu gën koo xam ci waa Nabou Kër suñu yaay Nafisa eh, eh, ñu gën koo xam ci Nafi Jibril suñu yaay suñu bàjjan ak mboolem baax yi nga xam ne moo ñu bàyyi toon guddal ku ci nekk dañ leen tudd wax liggéey yi xam ne ñoo ñoom ñëpp bind nañ ko ci texte waaye borom gàmm bi nga xam ne teew na te moo moom guddi gi moo tax ba nga xam ne ñu mën a dugg ci xam ne moom laa Cheikh al Islam bind na ko am na ci lu bëri lu gis famille bi manqué nañu ko liñ xam ne dañoo war a def waxtaanoo rawatina kenn ci sëtal bi Babacar Kam nga ca di bëri ci génn nañ walaay Cheikh al Islam ak mbool gi nga xam ne jot na ko ak famille boobu li ñuy liggéeyal l'islam ak seen i alaaqaat ak yeneen ñi kër si yaxyaal yi seen i baabaa way ne wax nañ ko kaar seen i bindante ci wàllu asaar ak kii nga xam ne defal nañ ko tariqa bi famille bu baax lañ boo xam ne maam Mariama Thioub moo dox seen diggante ak xaaj Abdoulaye Niass radiyallahu taala anhu su la neexoon rek waxtaan wi ñu basé ko ci xaaj Abdoulaye Niass mu dira seen maam ci maam surtout maam Mariam moom nga xam ne man la ñoo ne Cheikh Noor Maam si jàkkaarla tegtal bi mooy li ñu nettali léegi ne bii maam Haaji jaayante ak Mawlaana Cheikh al Islam allah ci Sénégal ne fekk na doomi ndey bi mën a baaxantale ci guddi comme borom guddi gi ñëw na moo fi euh, xalifa Seydi Ahmed Tidiane moo fi Cheikh al Islam moom dafa am baax yi nga xam ne ñoo ko daal foofu la ñuy yàlla di waxtaan wa salaamaaleykum wa rahmatulah. jazakumullahu xayran Seydi Mouhadir Cheikh Babacar jërëjëf muhaadara bi am na qiima Seydi Mawlaay Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim marhaban bikum ci sa jotaay léegi bi ñuy wax rek liggéey bàyyi ñëpp saaroo ñu ngi naan seet mag fekk mi ngi amee billet boo xam ne dañ koo réservé te bu ñu am Danemark mbaa nga dem ko waa Angleterre dañ ci xam dara ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla defal la toog fii waaye sa conférence ni ko waxee mooy borom jotaay bi ñëw moo tax ku ci waxee da nga gàttal da nga wax euh, ñi nga xam ne ñooy doomi soxna su sedd suuf Seyda Mariama Diouf waaye man ci taaw bi ca laa yem mooy waaye Ousmane maam Ousmane Mariam dafa nekkoon intellectuel boo xam ne hors pair woon ndax ñëpp dégg nañ ne film alquran mu commentaire moom ca defoon sa dégg nañ ko ñëpp mokkal nañ waaye la ca nekkoon benn baat bu caraw loolu wane na dimension mais dafa am jagle beneen bu amoon xel li dafa réyoon ba nga xam ne ak nit yi ñu nit woon pour dimbale bàyyi ci information daf daan dem biir kaw jënd ko journal bu ñuy wax Paris Dakar daal di fay ñu liiral ko mu mokkal ko ñoom di wax bàyyi na ko kat lu njëkk ni lii ci ne bu ñaareel li lii la bu ñetteel lii la guerre bi fii la toll moom foofu la ñuy am waaye da nga ñëw ci may Cheikhul Islam tudd fi leetar boo xam ne tudd fii bayhaat yi ci ñi xam ne ñoo doon def contre attaque di deuxième guerre mondiale bàyyi gisee ne mi ngi ba mu waaj pour dem France Cheikh na Ahmad Tidiane yëngu na si benn jour ne ko ajal xudumaka yaa aba ishaq yaa waarisa aw axir xudumaka yaa aba ishaq yaa waarisa sirri bi listixaaqi fa sirru lan yaxmilu gayruka fii hunaa waqti hunaalika wasimi yaa saaqi waaye nag taxawal na deuxième guerre mondiale te li ci wax tegtal la benn rek laa ciy dolli ñu jàll ci parrain yi nga xam ne mooy wax ci turi parrain yi mooy ne ni mu taxawalee deuxième guerre mondiale man dama ci am firnde bu mu ñese bay warkataa ñes da rakk yi sëñ daara alaaji karo dañoo toog mu ne bi guerre bi tàngee ba tàng ba leetar yëpp taxaw leetar dafa ñëw ci fa nga xam ne mooy fam euh, euh, fam nekk moom ñu rappel ko ne Omar mu jël leetar bi ñëw teg ci ay jaajëm wéer ay fetalam fekk leetar bi gis bàyyi ak wax naan yow Omar man sa baay Alhaji Ibrahima Niass maa la bind leetar bii dina wax ne sa wax na ci suuru bi wax joo xam ne bu asamaan tappaloo ak suuf yow da ngay si doo dee ci genn man yàlla ëpp na loolu su ma leetar bii koo bindu turam ci leetar bi du dee ci genn mu commencé di bind tur yi di bind tur yi ba leetar ba jeex mu bokk ci diggante bi nii attention. mu dugg ci biir diggante nit yi ba bi dee jeex mu ne kenn rek na xam koo xam ne dee na ca ba mooy ku njaboot bal ñu évacué ko ci hôpital bu sori mu fàtte junni turam kon kooku mooy kenn mooy ki doon wax ne in kuntum in kuntum kon yëpp bi laa fas yi jërëjëf Babacar kon sëriñ bi Cheikh Mouhamadul Macky Ibrahima borom jotaay bi agsi nañ ci ki nga xam ne mooy waxtu turu pare yi ndax maam Mariama tudd. SSETU Mouhamadou Sadis. lil ulamaa il afariqa benn mbootaay boo xam ne borom xam yëpp ñoo ko ŋànk mu amoon ay jotaay yoo xam ne defoon nañ ko foofu noonu ci Maroc mu nekk ci Afrique am na ñu présenté mbootaay boobu noonu. fii ci senegal këru diine yi nekk ci Sénégal yépp ñu ngi ci biir mbootaay boobu noonu ki ko jiite di docteur Rokhane Ngom ki topp ci moom di Cheikh Mouhamadou Karachi Ibrahima Niass mu am benn concours alquran boo xam ne buur bi dafa sàkku ñu amal ko ci weeru koor wii boo fa ci Maroc mu sàkku ci réewu Afrique yi réew mu nekk këru diine ya fa nekk nañ fa tànn juróomi nit ñu defal leen benn concours ñaari nit dañ ci génne ñaar ñooñu ñoom ñooy dem Maroc ci concours bu mag boobu nga xam ne international fii ci Sénégal ñu tànn wàllu dina bàyyi ne bugg nañ juróomi nit jugee foofu juróomi nit ci Tiwaawoon juróomi nit ci Touba juróomi nit ci waa Kër Cheikh Oumar juróomi nit ci waa waa Ndiassane muy ñaar fukki nit ak juróom tey jii la doon amal concours bi ci centre docteur Rawaan Ngom Rawaan Mbaye ñaar fukki xale yi ak juróom teew nañ këru diine bu nekk da indi kenn koo xam ne arbitre lay nekk ak kenn koo xam ne xale yi nga indi moo leen di encadré suñu jabar Baye Ñas di doom ci Cheikh Awa Diagne ak Rabia Abdou Cheikh Ibrahim moo teewoon ku nekk arbitre beneen yeneen kër yëpp tamit kenn ku nekk indi na sa arbitre ñu commencé jotaay bi ci huit heures suba ba gannaaw julli timis si la door a pare bi résultat yi génnee amul benn kër boo xam ne teewul te amul benn xale bu manqué tamit ci concours bi na xam ne ñu ko doon def bi résultat yi génnee nii la tëddee ku ñuy wax Mouhamad Moustapha Niang jugee Medina Baye moo jël paie ki ci topp Maaxi Touré la tudd jugee Medina Baye moo jël deux ki topp ci loolu Mouhamad Lamine Diante la tudd jugee Medina Baye moo jël numéro trois ki topp ci ñooñu. maam Jaara Ngom la tudd jugee Touba Mbacké moo jël numéro 5 ci topp ci kooku Babacar Ñaŋ la tudd jugee Medina Baye moo jël 4 ci topp ci kooku Faatu Njaay la tudd jugee Medina Baye moo jël 5 mu nekk dimbali ma nga ziyaare ñu bàyyi ñu ànd liggéey ci kër gi dem ba ca Pablo ba bu ñu agsee ci buntu Pablo bi sëñ Cheikh suñuy dàll bi benn taalibe jël ko rek mu doon ko bés bu gëj nit ñëpp jaaxle bi ci man maa ko rajee loolu mooy ñun àgguñ nuyu xalifa bi dañuy nuyu sëñ Màkki moom mi ko fi teewal mu nuyu boobu mooy gën a jot di gërëm di leen gërëm lool di sant yàlla ci nekk ak say nawle nekk ak say mag yoo xam ne fekkee nañ bàyyi bàyyi gërëm leen jàngal leen ndey lu ndaw fekkee woo bàyyi lu bëgg nga baax am itte tax ñu jël la fekk la ci kanam loo xam ne euh, responsabilité bu rëy rëy Cheikh Abdou <coughs> ni nga ko waxee borom jotaay bi ñëw na tax na ba am na loo xam ne benn tànn boo xam ne du ma ko mën waaye sama rakk sama xarit wala sax mu ne dama ne sama mag muy bàyyi bi euh, dafa am lu mu wax sànq wax bi ñu wax te ngoon mu ne ma wax bi ñu wax yi ngoon yi fii heure bi lañ ko waroon a wax ma bugg a teyaat loolu rek bu ko defee ñu daal di ko yemale foofa ñu jox yëf yi di ko moom loolu mooy lan mooy balaa may dugg ci loolu sax maa ngi gërëm Cheikh Babacar Niang ci taxawaay bu rafet xam ne moom lay taxaw ci bay bi di gëstu heure bu nekk def te yu mag ku dégg li wax léegi ak analyse ci def ak yooyu nee ko sa leer ngay jàng baax na waaye analyse ci def dañ koy daale loolu tamit am na njëriñ boo xam ne ni nit ñi war nañ koo jëriñ dama dégg ci waxam léegi mu wax li muy wax ba wax bi bàyyi di taksin sàmm garanti taalibe bi ci jamono guerre mondiale mu am lu ma ci jàngee léegi parce que man gis naa benn lettre boo xam ne bàyyi bind na ko benn taalibe jox ko benn mbóot ne ko mbóot bi def ko ndax mbóot bi man ci jamono guerre mondiale bi fii ci Medina laa toog mais ci laa doon sàmmee sama taalibe yi dara jotu leen ci jamono guerre bi Biafra bi ci laa leen sàmmee ba dara jotu leen kon man leen ci man leen ci waaye jàngat bi may def loolu nag mooy dama yaakaar ne il faut jot na nag pour ñu bennoo pour ñu lu tax ma wax ko gis nga police yi laaj leen léegi maa ngi leen di delloo njukkal bu baax di leen gërëm seen taxawaay bu rafet mais laaj leen léegi su fekkoon ne problème dafa am ci benn barab ay citoyen Sénégal nekk fa ñu yebal leen pour ñu dem récupérer leen xam nga ñu njëkk a def bu ñu demee ba dajale leen ci benn place ba ñoom ñëpp ñu nekk benn tànk ñu sécuriser leen soog leen tàmbali jëlee ko liggéey li ma ko wax ci loolu mooy garantie bàyyi boobu noonu suñ ci buggee dañuy nekk benn tànk ku lay sécuriser na nangoo nekk benn tànk nangu ñu jël fii yóbbu dajale leen fi leen war a dajale bu boobaa ci la ci la la ci lay sécuriser mën a sécuriser mais bu ñu yebalee ay policiers ñu def benn périmètre de sécurité dañ def léegi fii ku mu neex nga génn dem fu la neex ba lu la dal nga ne policiers yi la loolu du mën a nekk. lu mu ko wax mooy yaakaar naa loolu leer na naa ci sànq ci bëccëg ne sëriñ bi sëriñ Macky ñun def nañ Cameroun alhamdulilah def fa tukki boo xam ne yàlla def na ci ndam bu parce que ndax li mooy ñun laata ñu def Kaffrine taalibe bàyyi gouvernement ba daf leen a tracé woon ci Boko Haram comme Boko Haram la leen jàppee noonu leen leen di dañ leen di aaye si dañ leen di aaye recevoir gan dañ leen di aaye xaalis wala recevoir xaalis bu jógee ci réew di leen surveiller comme ni ñuy surveiller euh, neew muñ teg ci kaw taal mais ci voyage bii lañu ministre de l'intérieur bi wax Baba Lamine ne ko bés bi ci tey ñun taalibe Baye xàmmee nañ leen te dugal nañ leen ci ñi nga xam a ak seen ñàkk lépp lu ñu suba kàttan yi lépp lu ñu def nañ ko nañ ñu ko wax mu nekk ci ak ñoom te loolu ci digal président laa ko defee te maa ngi leen di yëgal ne président Paul nee na bugg na at mu jot gàmmu Cameroun bi am foofa ca ca ñu ñibbi si teg ci ay fan ministère affaires étrangères oo leen nee na lépp ñu ñu lu Cameroun fu Cameroun di teewal ci turu l'islam daanaka bàyyi mënuñ ca ñàkk a bokk te dèjà sax yónnee nañu dix personnes yoo xam ne dañ leen a soxla pour di représenter Cameroun ci ay muktamar ak jaay waaye man li tax ma nekk ni loolu pour sant yàlla mooy ne dama cee gisee ne la tax ñu am loola. mooy ne dañoo dajaloo ci ansaaru ci tur ansaaru diin am benn kilifa boo xam ne bu état bi wax moom lay waxat dankaloo boobu ñu dankaloo moo leen may bu fa bu bu fa xalifa bu yónnee baaba leen mu dem ñu am fa mais buñ tasaaroo woon duñ ko mën a am leçon boobu laa bëgg ñun waa Sénégal yi ñu jàng ko parce que mënuñ fa nekk ne ñu ne diin te fii la ansaaru diin déparé ñun sàggan ba àddina bi yépp bennoo adduna bi yëpp ànd ñu gis gàmmu Nigéria yi gis feneen feneen feneen ñëpp mën a dajaloo def benn dante ba mu def Sénégal loolu la firnde ni xew na te lu xew yi lu ne dañ ko war a bàyyi dem ci xew firnde xew mooy bennoo dégg nga laaj la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow bésu altine lan mooy solo si mu ne zaalika yawmun wulidtu fiihi bés la boo xam ne man ci laa mu mel ni dafay corriger waa ji sax wan ko ne ko bés bi ma juddu daanaka jarul koom ñuy laajte ndax ban solo parce que doy na rek ci laa judd kon juddu yonent bi war a màggal la waaye dafa am ñu ne ñoom dañ koy màgg dañuy màggal bésu juddu bi am ñu ne dañuy bésu ngénte bi bàyyi mu ne man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amul lu may jël ci moom di ko bàyyi ci moom man ñëpp laay boole damay màggal ci juddu bi waaye damay màggal ci njëkk bi waaye yemuma ca sax waaye bés gën juddu ak weer yu juddu ci ci ci ci ci avril bi boobu tamit dama koy màggal waaye bii nag ci weeru tubaab bi jagleel naa ko Katikaan jagleel naa ko Dakar. dañ daan ñuy sëy mu muy fàttali dama wax ak taalibe yi ne leen gannaaw gàmmu Medina bi gàmmu euh, Dakar bii ñu koy wax bi gën a rëy bi gën a rëy moo ci war a gën a rëy lu tax gàmmu tey gannaaw bàyyi lañ ko lañ ko sos ak li muy baax baax ak yeneen yëpp mais gàmmu bi bàyyi moo ko ci joxe ndigal bind ko ci xalimaam joxe ndigal pour ñu def ko kon gàmmu boo xam ne bàyyi ci joxe ndigal bi yaakaar naa ne gannaaw gàmmu bu mag bi moo ci kon loolu tamit baaxoon na pour ñu fàttali ko beneen bi ci topp rek beneen point bu mujj mooy maa ngi waxtaan ak taalibe yi ñu waxtaan ak autorité Sénégal yi ñu waxtaan ak service ci Sénégal ne Sénégal yéen jàmm la parce que commune bi dañ jógee ba ci démb avant loolu ak euh, état policier yi ni ñuy surveiller nit ñee ni leen di dóoree ku dem ci yeneen réew yi am fitna dafa am ne jàmm baax jàmm nag police baax na ci gendarmerie baax na ci service secret baax na ci nangam ak nangam mais respecté ante yi tamit bañ a euh, tooñ bañ a dugg ci ci ci domaine ak seen mu adversaire yi loolu moo ci ëpp solo loolu nag maa ngi wax autorité yëpp ci kaw tribune bi ci turu Ansar bi ci turu xalifa bi ci turu Cheikh Macky mii ne état bi loolu war na cee bàyyi xel parce que naa lu xew loo ne vraiment du jur tam mooy ku mu neex rek nga jël sa audio tas sëriñ bu la neex saboté ko rek daal ko dugal ci affaire yi mu tasaar ba ci démb maa ngi gis benn waaye bu ñàkk fayda euh, dama yaakaar ne sax ci waawoon la wax ne fa la bokk mais yaakaaruma ne fa la bokk wala bu fa bokk yi bokkeewu fa nañ na na na nga xam ne noonu la noonu la fa nopp yi bokkee parce que léegi saboté moom Alaaji Abdoulaye naan ba mu demee bi mu ñëwee daf ko wëree mu laaj ko Alaaji Malick Alaaji Ba mu mu ñëw ba agsi ci Alaaji Malick ne ko cadeau bi réer ma mu ne ci euh, kii bi xajaat bi génnee ko ne ko ne ko bii la mu ne ko Maodo mu ne loolu ci leen ci leen ci leen tuddee El Hadj Abdoulaye Maodo am bi war ay mesures ci parce que ëllëg yàlla bu Sénégal am problème mais bu problème bi am ci loolu lay jógee parce que buñ nangu ñu continuer di saboté suñu yi am na benn euh, benn waaye bu fi ma sa def ci télé bi di waxtaan ci mag am ku ne ko El Hadj Abdoulaye ku ne ko nañ bàyyi nañ nañ yem ci mag ñi ba ko ci diine ak bu mu mënti doon ko wax ci diine waxuma ko pour kii mais dama bëgg vraiment loolu état moo ci war a jël ay mesures génne ci ay ay ay loi wane ne désormais pour ja conserver euh, pour préserver jàll réew mi kenn ku nekk na wax ci boppam te tooy yi ak bàyyi euh, euh, saboté ak ak yabaate nga xam ne li muy jur ëllëg mooy lan suñu taalibe jub moo ñu tamit wala taalib bu euh, njaboot ma walaay jub ne dafay tontu wax lu bon te lële kooku nga tontu ko loolu dëgg dëgg état bi war na ci jël mesure parce que jëm kër day baaxu wa salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh أنت ولا أنت ولا مطهرة كمسلمة الجمال سنة وربنا للخير مكتبا تجوز فيه فلحقة ثم أمر من صاحب إلى رحم إذا مضى عنه فلا تبقوا فتحتوى بيتك المهيمن إن فلالها تحتى لطف وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاعت بنورك الخطوط فنظر في ذاك الرياء وفي نور السبل رشاد نقلبه اللهم إنا نسألك بجاه الممدوح لك والمال المصطفى من قبل الشتان والكون لم تستمر